وتعزم الصبر ko amal du am morom te kii borom yi borom yi moo defaal waaye duudu yow man lee la xam moom mi la wax say tay nga yow sayu nga yàlla ci say loxo ku la jox loxo amee fa ko moo di kun xam leen ko yéen kon moo di kun lépp am ba yàlla deful waaye la amal la kon la njëkk a fay loola di bàyyi waaye moom mu daan na leen ci jeex moo tàmbali lépp lu am ñun suñ bëggee gërëmaa ne bàyyi nañ jéem a ci bàyyi duudu bàyyi bàyyi duudu

baa mu réera ay mayama am na fi tey ñu oote baay te leerlu wuñ ci faydu baay baay duudu bokkul te yow ya gaay suufe la tànn ci baay wala doomi baay yëpp a ku dem ci ñoom ñoo lay jëri perte rawul nga toog ci a wax leneen lu génn baay lu génn baay ma su ma ko waxee teftale wut ne ni du baay li ma ci namm mooy rafetal la te jéem a jëf baay yaay awa ñu may gërëm sa jëf ju rëy ci suñu baay yàlla di fay yal na la fay ci barke buntu fay du baay amewul doo ak taalibe moom bu toogee ñëpp daa di suur man maa la yaay isin nga yaay billaahi am nga ngërmaane baay doon noonu la yaay tatu lewet na kenn du gis awa bu ko seen mu nga sëyimu mu ngay xalaat lu ñuy jëriñaa baay man la ca moo ko nangal gërmaande la ci baay duudu baay bilaahi yaay gërëm nañ la yaay yaa ñu jëriñ ci bay du baay yaay bay du ñu ngay gërëm ñu ngi lay ñaanal ci barke baay yàlla yàlla yokku taban ci barke baay ne leen abiya yaay mari yaay maa ngi lay ñaanal fan wu gudda wér gi yaram la ñu lu ma ci baay duudu baay yàlla yàlla defal ñu ko toujours yéen asamaan set na nañ leen di jóg te dellu tool noflaay mayu tëdd ki toll nañ leen di jeex ci jëmmi baay kon jataaka daaw nañ dëgal nañ leen jukkal suñ baa ci wér baaye ko tànn dara la woon man lee ko nan nag ci bay du baay borom ko njur xol yaa ngi nii borom oore xol yow yaa ngi doy óolu bilaahi baay maa ngi lay gërëmaat

baay duudu man yar naa la man nga ma sooku ma sax di la way ba mel ni ma daan way suñ baay ba dem jool ibu juur wax fi ba dem jool bus ni li ba dem mooy jéema aw fa yoole jaar allahu buur bi jox ma baay waate wax loo woon kéwél ga dellu wax loo mbëtt ma kay moo ma wayloo baay duudu bi tey bilaahi baay amoo morom morom man jalaaka raag ban ko baay jugal ko baay mooy jëriñ

ca bàyyi ca la xam ne ñu kon abaaka doy na la xaasira jaamu yàlla buur bi ak yónneen doy na xaasira daañu mala am ma ñëpp ma ne tiyaawu rahmaan indi na ci gox yi kani mala fiira rahmaani yaa rek jërëmal la daañu mala am ma ñëpp ma ne tuyal yu bàyyi balaa ñoo xel ñu ndax bu fees a fees ba bu ñu xel ne gaañi na jaara gaañi ba am may fay tuuru bi te doo ñu mën a fàllu man de xame naa la gàllu daw ci jigri gëm leen na lu bara am may mën a xomar ma xoon moo nekk bi te yaa ànd ak waaja woon baraama moo doon mu yom na gaañi bara am may mën a xomar ma xoon moo nekk bi te yaa ànd ak waaja woon baraama moo doon mu sunnaaye seeni bara am may mën a tantra bay papa daama ko jiite buñ bi soobu leen lu yàlla ñu leen gërëm doy naa yani bara amanya mana bai duro bete gati sa tekte you don no kura ga fakoro yo di jama imma yani bara amanya mana sopu bai duro takna mai kafir dije mu wai bai bilai soma wayon biu gayola duro bara amanya mana billahi bai amo moram yafgai yafuma atana ini la magi butu bara amma seri bara amanya mana tamu bu magwi et nga samme pasan chawo homa baga jople gramela duɗo mbaɗa amanana kuwateɗalɗi turmanɗi bonon bakkorɗano yaani woto yaani mandalla yaani mbaɗa amanama yaani yebon kera kuuban bayallay ala jamnatu bañum mbaɗano naton tene mbar amman